internet yi topp Télé TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci 2024 plus ni ñu ko baaxoo du lundi au jeudi ci waxtu bi ñu am mbégte bu rëy dellu siwaat ak yéen pour le troisième numéro de la euh, semaine euh, di yaakaar ne euh, yenn ngeen ak jàmm di ñaan itam ñu fanaanoo ko ndax fi mu ne xel yépp dafa jaxasoo personne n'est tranquille ça peut basculer à tout moment mm-hmm. selon tension bi nga xam ne ñu ngi koy palper on a entendu tout à l'heure les candidats yi nga xam ne ñoom la ñu validé woon euh, ñu am aussi taxawaay bu ñu am ci situation bi euh, mais également de l'autre côté gis nañu euh, que ñu ngi def maintien fi ñu taxawoon foofu la ñu taxaw la communauté internationale aussi am ci taxawaay tey àddina bi yépp mën nañu ne ñun la ñu yendoo waxtaanee ñun la ñu teg ci kaw taabal ji loolu nag nekk encore une fois gàcce image yu Sénégal image yu démocratie euh, moom moo gàkk noonu ci euh, euh, bitim réew alors que Sénégal quand lu mu ndaw ndaw ndaw ci wàllu superficie ni ñu koy waxee am na fu ko àddina bi tegoon am na aussi nu ñu ko doon xoolee ci wàllu démocratie mais surtout sa stabilité stabilité qui est tey très menacée ñu war a waxtaanee loolu yëpp ci 2024 plus dinañu jokkoo justement dans quelques instants ak le professeur Mansour Aw muy historien syndicaliste nekk itam écrivain fekkee lu bëree bëri ci histoire politique bu Sénégal nekk itam membre de la gauche euh, bi nga xam ne ñoom itam am nañu taxawaay bu euh, am histoire ci réew mi loolu yëpp dinañ ci ñëw moom balay booba nag ñu dalal sunu chroniqueur maison Cheikh maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna Fatou euh, di am mbégte encore une fois teew sa plateau. Euh, di nuyu sunuy mbokk internet ñu seetaan ak fu ñu mën di nekk si àdduna bi euh, voilà di ñaan yàlla lépp lu ñu fi waxtaanee rek yàlla na doon ngëneel si ñun ak si askan incha allah. Mm-hmm. alors Cheikh nous allons faire l'entretien à deux avec le professeur Mansour Aw qui est normalement en ligne professeur ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di ñu ngi am mbégte lool euh, dalal la euh, ci Télé Sénégal TV pour la première fois euh, man ak yow yàgg nañu jokkoo yàgg nañu échanger yàgg nañu itam waxtaan lu bare bari ci tolluwaayu réew mi mais aussi ci histoire politique bu Sénégal alors professeur naturellement dañuy waxtaanee li xew samdi ba tey mooy dàqum élection présidentielle fàttalikuwuñu fu mu amee depuis 1963 yow déjà en tant que membre de la gauche historien également naka nga jàngatee boobu décision bu président de la république jël euh, selon euh, crise bi mu ne euh, am na ci diggante institution yi muy assemblée nationale ak conseil constitutionnel. jërëjëf Fatou Thiam Ngom ci nga temps yi yëpp yaa ngi dégg ci politiciens yi. ak ci yu bare bari ñu naan ñii mi ngi fi soog a am euh, loolu mooy dëgg gi waaye nag boo dee historien loolu du la jaaxal loolu la ñu tuddee le cours de l'histoire le cours de l'histoire moo di askan wi ni muy doxee ñun loolu dañ ko yàgg jàng ci lu ñu tuddee matérialisme historique ak li ñu mën a tuddee matérialisme dialectique maanaam askan woo gis rek yoonam du jóg rek egg dana am ay jàdd jàdd dana yéeg dana wàcc yooyu yëpp dafa nekk lu ñu mën a tuddee le de l'histoire maanaam comme euh, boo gisee ne fleur maanaam mu di dex dex yi dafay am suuf maanaam day am fu muy juree fu muy juree lu tuuti lay doon di nag euh, daw nga gis ne dana am ay jàdd jàdd ay jàdd jàdd danañ ñëw foo xam ne fi fu xóot la mu jaar nii dana gis nii mu dévié wu jàdd fii jàdd fii ba ñu muy egg ci géej loolu mooy le coût de l'histoire mënuloo ko prévoir te nag dans cours de l'histoire lu nekk mën na am lu nekk mën na am dans le cours de l'histoire ndaxte histoire ñi ko seq dañoo bari li la mën a féewale bari na rapport de force yi itam bokkuñu dañuy xëccoo ci nii wala xëccoo ci naa de sorte que yi mën a xew kenn mënu ko prévoir waaye nag dëkk boo gis rek ña fa nekk war nañu. seet li ñu tuddee le contrat social maanaam nekkinu askan wi lan moo war a nekk diggante nit ñi loolu moo indi tërlin bi ñu tuddee léegi ban régime lañu am ban type de d' institution la ñu am institution de gouvernance yéen instructeur la ñu am di des consultance lu nekk rek dañ ko war a seet càmbar ko seet bi ñu koy tëralee bu ñu ko tëralee nag ñëpp dañoo ànd war di ko respecté loolu mooy le contrat social moom moo yóbbaale le contrat politique économique sociétal le bon vivre entre les citoyens li fi am euh, dafa am benn euh, suñu papa bu mag di sëñ Abdou Aziz si ñii naan ko al amin mm-hmm. dafa génne woon benn xalaat naan de fam amul famille boo xam ne bii i amul werante waaye mu ni ñun suñu famille warante bi mooy jàmm ndaxte rayante wuñ bi mooy jàmm ndaxte rayante wuñ suñu toll nii werante mënul ñàkk loolu dañ ko war a xam ndaxte gis-gis yi bokkuñu jaar-jaar yi bokkuñu taxawaay yi bokkuñu waaye nag war nañu seet jubluwaay yi fan la loolu bi ñu ko gisee rek dana mën a jubóo suñu béy li am discours le président Macky Sall nit ñi xëy na seetuwuñ ko woon xaaruñ ko woon bañ ko waxee itam ñëpp na teg bi mu ñëwee li mu indi. am na lu mu jur ci askan wi li mu jur moo di ay xel ak i xalaat yu féewoo ñi d'accord ñii d'accord ñu te nag ma waxal la man depuis ñaari at ca gannaaw dama daa def ay ojo di ko envoyé dans toutes les rédactions des journaux dama laaj rédaction yépp quelqu'un du milieu de la presse mu jox ma affaire may def ay audio di envoyé waaye dañ far di li am tey moo di ne euh, Macky Sall le président Macky Sall avec tous les respects qu'on lui doit dañuy analyser defuñu appréciation mm-hmm. defuñu jugement bu nee wonee nañu xët dem ci élection yi le vingt cinq février lan la naroon a jur ay jafeñ-jafeñ ci biir askanu Sénégal kenn mënu ko xam ndaxte am na quarante candidats yoo xam ne yi ñoom nee na dàquuruñu woon da nee na seppi te ni lee seppee jaaduwul bëgg nañu ñu delloo leen waat ci mbir mi ñu jaar seeni droit loolu li ñu wax mën nañ ko dégg nag la mën a amee nag mu di benn question ñii itam na ñun ndaxte ñun lañu segg seggat ñu ñaar ñaari yoon ba ñu nekk ñaar fukki nit te ñëpp nag nañu bokk kon nag nañu dawal li nga xam ne mooy charte bi mooy tëraleenu réew mi te it moo fi mën a jur jàmm ak kiy gañe gañe yi nga xam ne gañe mais ñu xam ne gañe wuñu da ngay ut ut bu rafet am am bu rafet ut ut bu rafet boo ñàkkee ñàkk euh, rafet waaye du la mën a condamné ci lii wala ci laa loolu mooy di wax bi ñeneen nañu woon def élection yi am nañu droit na nañ élection bi à la date du vingt cinq février ñii dañoo seppi am nañu droit ne bu fi élection amee résultat bu fi mën di génn ñun duñ ci d'accord te wax nañu loolu waaw kon nag gis nga ne ki nga xam moom moo jiite réew mi fu mu xàcc rek fu mu dóor rek dana am ci ñu mu métti kon nag dëkk ak tey dafa war li mu def nit ñi yedd nañ ko ci maanaam li ñu gaawantoo indi assemblée nationale diggante teel ëllëg ñu dajale leen dajale bureau bi ñu indi seen ordre du ëllëg sañu réunion def këyit envoyé ko président président war a wax à midi waxul midi xaar ba deux heures tardé nit ñi waaye du noonu li mu jur moo di déception tardement bi la warut li mu wax ne dàq naa te waxula ba dàq la itam nit ñi yedd leen ko ci te it ni assemblée taxawee nit ñi xam nañ ko kën nag yooyu yëpp bu amee li war kon lef ne dafa naan bu ndox tuuroo an mbaq fa des waaye eh, am na su ñeneen maam ñu bu ndox tuuroo dam root waat fa ci des ndaxte mbàq boobu kenn mënu ko jëriñoo boo tax de tey jii man dama ne le président Macky Sall taxawaay bu mu war am moo di ne moom la le deux février mandat jeex na te nag mënul am vide institutionnel vide institutionnel moo ne dara du fi nekk léegi amul loolu mën a am li nekk kay moo di vacance du pouvoir ñu ko yóntalee nag moo di bu feebaree wala bu génnee àddina mawlid la yim ci waaye comme mi ngi dund àddina ak xelam mm-hmm. neena na jàmm la bëgg indi que ñëpp bokk ne i a jugoo maanaam le trois mandat jeex na mu ne jeex na ni ko suñ charte réew tëralee moo ne ne président assemblée nationale moom moo jël vacance du pouvoir ci ñetti weer yi war na organiser ay élection hmm. mais mais professeur. waaw daq bi ci boppam mooy problème. dàq bi mu dàq hmm. élection yi. parce que ñu bëri jàpp nañu ne crise bu war a tax mu daq élection amu fi. amul ah lool la wax. Hmm. lan la wax dama ne la. mu di nii wala mu di naa indi que des problèmes hmm. waaw moom nee na que lii c' est le moindre mal pour permettre que ñun ñëpp mën a bokk ñun ñëpp mën a toog waxtaan loolu mooy xalaatam waxaguma li ci lan laa ci xalaat. Hmm. waaye loolu ni mu ko indee mënu ko yëkkati. di jalgati bi nga xam ne mooy charte réew mi mu di constitution comme nee jàmm la bëgg te moom mënut fi toog ci jàmm ak ci salaam waay waay waay waay waay ndax xam ne ko jeex na li war moo di jox vacance bi le président de l'Assemblée nationale ci délai trois mois mu war a organiser les élections loolu mooy tëralinu constitution bi moom au-delà du trois mënatul toog warul toog te bu fexee ba toog lu am jàmm te itam jëkk bi la am jàmm moom bu nee jàmm la bëgg ci réew ay réew yu jëm kanam war na nangu ne pour mu jubalee ñu ne d'accord nañu ak ñi ne daqul ñëw moom ci boppam na roj ci boppam indi li nga xam ne mooy tëralinu constitution bi président assemblée nationale mën a toog organiser les élections jàmm am. kon loolu mooy solution fi mu toll nii. loolu.